santé am yëpp infrastructure yëpp am na ki dëkk Ndar Alioune Badara Cissé mën na ko ki dëkk Casamance Balde mën na ko et cetera ñu mënul parce que tolloo bu ñu fa nañuy jéem a seet nu ñuy naxanteeg ñu ko yor accompagner bis bu ñu fa tolloo nag ñu yor jikko ñeneen ñi li ñu yor mais mënuñu nekk ci fii cinquante kilomètres de Dakar nekk la toute première commune du Sénégal. am 500 étudiants si les chiffres sont bons je ne sais pas parce que moom la ñu ma waxoon fii am autant de cadres autant d' enseignants ay magistrats ñu fa yeewu ingénieurs agronome ak yu nekk te war a toog tout le temps di ay questions kañ lañuy am li nga xam ne mooy li gën a tuuti ci détail bayax tey boo fa duggee bayax li muy rëy moo fi ëpp yépp waaye am na kër yoo boo fa duggee ndox fa dugg y a un problème gollab gollab ba fu demee ay ten rek nga gis ñu takk mais benn épidémie bu fa amee ci ndox boobu ñuy naan benn feebar bu fa am maari itali yàlla bu mu am mais da ne waa Sénégal waa Tawra yi ñu naan bu dégg bëccëg te waxuñu dara foog si gollab leen fekk ci ñoom la jëm ci seen kaw la jëm donc ñun dafa war a benn conscience collective boo xam ni au delà enseignant ku ci nekk jàpp ni. li nekk ci sanc moo nekk toor lii problème mu toor mooy problème mu waxal moo nekk problème mu jandeer tànk yegguñu foofu ànd solidarité boobu engagé ci jiitoo dina jafe ci fukki at yi ñu mel ni Sangalkam wala ñu mel ni Diamniadio day jafe donc fi ñu war a mën a jëkk def monsieur l' inspecteur mooy ku nekk d' jàpp ni damaa dëkk toor damaa juddoo toor waaye dëkkuma fa damaa juddoo jandeer waaye dëkkuma fa waxal la dëkk sanc la dëkk et cetera et cetera solidarité boobu mooy tax ku ci nekk suñ la wooyee ci intérêt général intérêt public nga ni ah kon man kat ñii liñ mooy wooyee responsabilité bi pour mu réussir ci samay loxo personnel laa nekk donc waruma leen ci xaar day mu doy mënul dugg kër bu nekk mënul wax ak bu nekk Jimi Njaay mënul ko Alassane Ndoye administration mënu ko keneen mënu ko ku ci nekk d'abord da ngay def introspection personnelle xool yow lan mooy sa devoir d'abord nan laa ci war a mën a def ba xale yi ak njaboot gi parce que monsieur l'inspecteur déglu naa la bu baax nee nga waxuma ak kenn xale yi lay waxal c'est très important fekk fukki at war nañu fi mën a construire ñun bu dee dëgg ci ñun benn plan de développement boo xam ni dañ koy teg mu leer dëgër ba bu ñu koy mesurer du ñu ko mesurer ci ñun liggéey jariñoo dañ koy mesurer ci xale yu ndaw yi am fukki at fekk ñaar fukki at ndax war nañu dunde ñun liggéey ñuy dunde suñ ko defee rek réussir Kouthia dafay wax ni xaar mbay ma jaaga bi ñuy def coupe du monde dafa daan waa ngi kaaroo yàlla yàlla yemale ñu kaar final mais bu ñu noonu finaaloo yàlla xëy na suñu borom aussi bu fekkee ni ñun bëgg nañu suñu bopp dem ci ko dañ koy gëm muy mais mu jaral ñu ko mu jaral ñu ko affaire bi dootu affaire mbokk dootu affaire xarit dootu affaire dëkkandoo affaire intérêt général la fan la gën a yombe ñu ànd ci def benn ceinture wër ko taxaw def li war ba pare bu ñu paree di ko sawaay def nañ lañu war wax ñu yow aussi suñuy droit ñun ñoo mais day jafe ñuy interpeller tout le temps état di interpeller tout le temps Ibou bi ñuy yaakaare ni rek am na lu ci war a man te bu ñu taxee war a wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy joxe mais bu ñu wotee sëñ bi ñu wax ñu gannaaw day xaw a day métti te daw sa ba ngay ami tànk la fii lu ne ngay dégg lu ne lañ lay xas bëggul janeer tabaxu fi yoru fi te lu ne ngay dégg mais loolu mooy mooy xorom si c'est ça qui est important ñu di la ko waaw bés bu yàlla sax ngay jéem a nooy doxale ci li ñu bokk rek ba leen naan sama gars yi da ngeen comprendre wul waaye bu ñu demee ci kanam di ngeen comprendre loolu mooy li am solo tey Touba ku fay dem hélicoptère sax dañ fay wàcc Serigne Touba xamal na leen ñu Touba pratique ci dund parce que juróom-ñaari at dina fa dund defal bi lay def 1895 ba 1927 bi génn àdduna te tey foo wax ci Afrique ak dans le monde entier. rassemblement rassemblement bi gën a ëpp ci mbooloo jëm ci musulman lay doon philosophie boobu man moom lay àndal te may liggéeyee doon muy sama kilifa président Macky Sall su daan ñëw Fatick dans les années quatre-vingt-dix ñu di fa ànd des fois ci milieu séeréer sa papa yore fay miliyaar yore fa dara dafa métti woon mais ko gëm. soxla àll ci di rent di te di tey lu mu soxla lu mu soxlawul yépp muy teraanga jëm Fatick nit ñi dañ koy wër dugal Fatick di ko fa yóbbu mais Fatick bu démb ku xam ak Fatick bu tey xam nga di bokk mais nit nag booy ànd ak moom gis ci jikkoom ak doxalinam loo xam ni njariñ la ci sa askan sa bopp avancé tuuti nga jëm pour sa askan loolu gëm naa ni c'est pas un rêve c'est jandeer suñu taxawee imposé wu taxaw ni ñu war a taxawee yàlla bi ñu tiim su ma naan jandeer Kayaar Kër Moussa yëpp lay wax suñ ko defee résultat yi mu jee génn ci référendum bi ñu génn résultat bi gën a am solo ngeen dégg ñu ni ko bàkkoo partout au niveau du pouvoir mooy la victoire du département de Thiès mais bi ñuy am département de Thiès di ko gagné di daaneel Idrissa Seck parce que dañoo gagné jandeer gagné Kër Moussa donc guerre ak Jader ak Kër Moussa dañu am importance sur le plan politique am importance sur le plan économique am importance sur le plan social donc ñun nañu xam li ñu yor bañ ci am benn complexe war a taxaw laaj ko jël ko man rus naa yi mu doy taw fii ba 2024 président Macky Sall jël bagaasam dem Fatick ñuy tudd état Sénégal yi mu rek ñuy wax ci janeer wala ci na gàcce na man bu boobaa man man ma ko tiitaru ay cadre ñu ngi fi wax nga ko tout à l'heure ñëpp a fi ay possibilité ñëpp a ngi mais dañu leen ko dañ leen koy jaral ngeen bay loo xaarul ci naaj bi du loo fekk ci kenn mënul nekk il faut qu'on position politique du lu bon ndaje yi boo gisee muy xaw a jafe soo jiitee ndaje yu mel nii boo xëyee yaa ngi ci Moussa après demee nga naan Ibou Ndoye di wax kii gars yi aussi ñu nit yeewu nañu tuuti ku ci nekk nit ñuy xoole rek di joué loolu la ñuy joué ak yéen nag jàpp suñu jàpp del toog mais kan moo ciy dee jabee rek ciy dee da ngeen di jël engagement ni ñu ko jëlee ouvertement taxaw ni Massamba Ndiaye la ñu àndal wala ma Ndiaye la ñu àndal mu leer nañ ñi ngeen di waxal ñu xam ñi ngeen di waxal nan la ñu et puis ñu avancé que c'est ça aussi la liberté waaye nag day jafe heure boo wootee ñu wuyu wuyu bi di xaw a kii boo jaaree fii jaar fële jaar fii yooyu aussi dafa ñuy tardeel te ñun période bi ñu toll ba deux mille vingt quatre am nañu possibilité aujourd'hui barke alxuraan régler problème mu jandeer yépp nga xam ne ay détail mooy mbirum santé bi parce que immigré yi suñu mbokk yi ñu ngi leen dajale nañu lu mat de francs CFA depuis sept ñu ngi seet lu ñu jéem a tabaxee benn centre de santé bu mag boo xam ne dina couvrir fii ba Mboro ñu dem ko retard yaa ngi am ñu bëri du accuser kenn mais am na ay retard ay constaté dañ ko constaté àll ci ñu jéem réfléchir booy dem ñaari at ñetti at ñeenti at ba xamatoo fu ngay dem da ngeen di taxaw def introspection ni est-ce que duñu soppi yoon ànd ceeg ñeneen parce que ñun ñëpp ay doomu da leer lañu kenn ëpp fi patriotisme kenn gënu fi jat bëggal sa bopp ca leer amul man gëwuma loolu pour man lépp lu ci waay di def rek am nga sa yéene bëgg nga janeer wante dama nañu am courage di changer di soppi man ma day dama koy wax je le dis haut wax dëgg yàlla jëndaat day bu ñu ma daal dara luñ ma dégg am bu ñu waree laaj laaj naa bu ñu waree taxaw taxaw naa waaye day ko ñu ma koo déggul nag dina jafe pour nga laaj ko nag ni ko lii di ko def langage de vérité boobu daa bëggoon a tenir suñu mbokk yi ñu jéem a set bu nuy dem koy dem ba xamatoo fa nga jëm da ngay dellu tuuti teg sa tànk faneen ñu jéem a laal laneen sëñ bi sama gars yi sax des fois ñaareel yi bari na ak ñetteel am de dañuy jéem a xool juróom-ñaari at ça fait sept ans yéen a ngi même situation xam ngeen ko xam naa ko xam ngeen ni retardé te kenn ñangul jàpp fan lañ ko teg dañ ci jot taxaw wax ci ça fait togg bu su naree neex su baxee dafay xeeñ te yéen gëm ngeen ni li ñu fiy laaj yépp mais mu ngi ci loxo état te bu état la xam ne sax ngeen teg sa loxo mais du leen ko def ci samay mbokk laa nekk damay wax langage dëgg li ma xalaat ci yëf parce ñun fu ñu toog aussi ñu ñuy door xeer rek baax na ci dañ koy accepter waaye en retour aussi bu ñu jàkkaarloog yéen da ngeen accepter aussi tey mënuma jël sama téléphone woo Serigne Mbaye Thiam li ko dimbali ma parce que am na mbay jeen bu ngi fële ci Fuuta andil ma ko jandeer mu jege bu ko defee daf koy def rek parce que am na rek wala et cetera yëpp en titre à titre de relation personnelle mais en terme de positionnement politique et de rapport politique dina jafe maanaam Serigne Mbaye Thiam jëlal ma kii nekk Kolda bi ñor suñu gars yëpp ngi ci àll bi de te war ngeen a mën a ñëw jege si fii ñu taxaw liggéey si mais li ko war a loolu mu mën a yomb jandeer rek laa gis ci commune yépp yi ma xam bokk di ci liggéey di ci dugg ak génn amul benn réseau enseignant bu bokk ci parti au pouvoir amul benn réseau étudiant bu bokk parti au pouvoir amul te pourtant chaque mois le président de la République baaxee ay subvention yoo xam ne daf koy jox sa réseau la pour ñu di ko wàccat mu delluwaat ci nit ñi mais man su ma demee ni monsieur Youssou Touré dama soxla dara pour enseignant jandeer mais bu xoolee registre gisul benn enseignant gendarme gisul benn réseau gisul benn cellule mais sëñ bi day jafe si man man moo ko imposé dara te pourtant am na lu ñu leen war a mën a dimbali parce que ce sont des sources yoo xam ni sa sert à ça loolu lay jëriñ su ma joxee quota ni ko cinq étudiants am naa ko euh, cinq enseignants am naa ko yoo xam ne ñu ngi ci biir àll bi maa ngi doon ñaan yàlla nga jàppalee ma ci bu ngeen di négocier avec le ministre. de l'éducation nationale pour ñu xëcc leen ñu jege si dina ma ni cinq yi bëri waaye mën naa ci li jël ci trois yi na fekk nag aussi ñoom tamit bu ñu soxlaa taxaw ñu gis ko politique du lu bon engagement politique du lu bon ku leen ko gëm loolu day wax lu ko neex il faut le faire d'une manière ou d'une autre mais il faut le faire Jibi wax na léegi développement ak politique ñu ànd développement ay politique politique mooy dañuy seet askan bi li ñu bokk seen nekkwaay seen dëkkuwaay nan lañ ciy war a man a taxaw ba li fi nekk ren am amélioration demen amaat année bi ci topp loolu mooy politique de du la nen loolu moo ñu dimbali bu ñu taxawee fii tey dugg bayat dugg xaar yàlla dugg daara yéem a waxtaan ak waa SDE yi nga xam ne am nañu un programme de trois cent millions de francs CFA pour fépp fu xam ni SD romb la fa comme tué ñu dugal ko jandeer bokk ci woon waaye ñu dem seeti le directeur général reyante dugg génn ak yooyu ba ñu intégré ñu ci waaye monsieur le Toussaint war nañ ko loolu aussi ba loolu jël en cadre yi taxaw dugg ci dëkk bi andi tout ce qu'il y comme débit euh, débit rek la ñu ndox mi fii la yem nañ ko topp ba un kilomètre fu mënti dem baax na dernière maison la def débit jusqu'à un million on prend en charge on paie ça fait des mois daara beer ak bayax daw nga ci topp ci ba sonn dañu dem bañ la naan sax cinq mille francs bi yow est mënoo ñu ko fayal ça pose